teur si réquisitoire introductif de dafa laajte ñu placé suma la dépondé la donc juge bi amul woon la liberté de faire mettre euh, sous contrôle judiciaire donc il était un peu lié par le réquisitoire introductif du parquet Euh, Abdoulaye ginnaaw bi ma la nuyu ba noppi itam ñu daal di gis li nga xamante ni am na euh, ci wàllub mbirub euh, Ndella Madior Diouf bi ndax mandat de dépôt bi bett na la am déet. non dëgg-dëgg mandat de dépôt bi bettu ma. parce que mhm. tamit police def na l'enquête. Mhm. donte la dañuy wax ni la ñuy jiital toujours mooy présomption d'innocence. Mhm. bu ñu yeggee si càppaandaw daañu si gën a xam dara waaye li enquête yi génne dañu naan dafa am forte présomption de culpabilité. jëm si li nga xam ni moom la enquête yi génne léegi nag euh, procureur déglu na ko jébbal na ko juge juge bi xool na ko jël na ay chef d'inculpation takk si noram euh, yóbbu nañ ko ndungu ndungu ndungu siin mhm. en attendant de voir léegi nag la suite des événements mhm. mais mbir la boo xam ne daal war nañ ko war nañ si xuus bu baax a baax par rapport li nga xam ne moom la ñu jàpp ni euh, la ñu teg si koom enquêtes yi fu ñu toll nii mi ngi gën di wane saa su ne diggante Ndakaaru ba Simal mhm. léegi nag ñu nañ ci euh, mais euh, par rapport ak li nga xamante ne dooleeku waat na ci ndoddam mu nekk lu bari sax ay chef d'accusation yoo xamante ne bëri na non assistance à une personne en danger mais également euh, pratiquer médecine te nag amoo ca ndigal mais également ñu daal di gis ne itam tegaat nañ yeneen yoo xamante ne ne ci wàllu woobu inhumé te amoo li nga xam joxe permis bi te amoo ci sañ-sañ waaw loolu nag moo si gën a doy parce que tamit bu fekkee ni dañu wax ni moom danaan daan signé ay permis certificat de décès euh, euh, si li enquête yi wane te këru yéen kaay génne ko loolu moom dafay nekk mbir bu doyoo doyoo doy waar parce que tamit li ñu wax rek foo usage de faux Euh, wala boog exploitation document boo xam ne yow amoo ca cër. Mhm. parce que loolu dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom war ko mën a def pour mu nekk ay papier authentique mhm. bu ñu nee nag itam euh, li nga xam ne mooy euh, bakken goo xam ne mi ngi si gerte comme ni nga ko waxee. Mhm. te amul noo taxawee taxawee pour mën ko dimbali si mu nekk ay nit yoo xam ne mënuñu lekkal seen bopp mënuñu naanal seen bopp mënuñu wax dañoo feebar defe naa ne ay la yëwoon nag da nga war a am. disposition nécessaire ak le personnel nécessaire bi nga xam ne da nga leen mën a taxaw beneen bi mooy exercice médecine parce que yow boo nee da ngay def médecine interne médecine externe est-ce que yow am nga titre médecin est-ce que yow médecin bi ngay wootee def nga li nga xam mooy soutenance de thèse ba ñu ne yow mi nekk nga médecin def nga stage yi war laata ngay def loolee si kër këru docteur yi xam lan moo di feebar bi nuñ koy fajee lan moo di lii lan moo di lii nga def ko comme ñu ko xamee si médecin yi defe naa loolu dafay daal di doy parce que boo nee réservé woon naa benn partie xam ne foofu laa waroon ubbi cabinet de médecine defe naa ne nag ay la yëwoon fu mu toll nii euh, kër ordre des médecins seen wàllu bopp ñoom waruñu bàyyi mbir mi mu sedd. waaye itam autorité seen wàllu bopp itam war nañ leen dut baaraam bu baax a baax a baax parce que tamit euh, du nit ki kese nit ki jëf na jëf goo xam ne tey ji ñëpp a ngi koy euh, ñaawlu waaye itam autorité yi nga xam ne dañ leen ko dénk si mbir mbirum gune yooyu ñoom dañ see am part de responsabilité à tout point de vue hmm. ndaxam dañoo toog seetaan mbir boo xam ne ñoom bu doon dañu dañ doon saytu nuñ ko waree saytu def naan duñu yegg si lii ci wàllu woowee sax bu ñu sukkandikoo ci euh, sociologue bii di Mamadou Wane ñu gën ko xamee ci Mao dafa jàpp ne laisser aller la ak impunité boo xamante ne ne autorité yi am nañ ca part de responsabilité te tey te boo moytuwul euh, sanction sax euh, duñ ko gis ci wàll wu nu mel dañu koy teewlu euh, moom Mamadou ak Dame Ndiaye ko soo gisee loolu am dañ ko seetaan amul këyit làqu woo ci kër nga nekk nekk ci koñ moom délégué de quartier yoonam nekku ci moom structure yi nga xam ne mooy toppatoo di aar xal yi dara ngay def d'accord démb président jël na décret yooyu mais am na déjà am nay loi yi nga xam ne fii normalement kenn waru fi jël xale te amuloo këyit nga xam ne ci juge bi tribunal lay jógee nu koy waxee ordonnance de placement vraiment maa ngi koy ñaawlu te yaakaar naa ne bi yoon du am impunité yoon bi dana dem ba fu mu war a yegg te loi yi ñu appliqué ko effectivement ñu mànkoo nu ñëpp pour aar xale yi ay xale ay bébé dee ndax xiif ñenn ñi da leen jaay parce que suñu gisee ni ñu ko inculpé am na ci sax traite jaay la ci àdduna nga xam ne léegi dañuy jaay ay organe di ay xale ay bébé ci adoption internationale xaw ma lan muy seetaan ndax yaa ngi tudd Ndella Madior non yëf yi war nañ ko xoolaat mu noonu mu jàpp ne yoon dina def liggéeyam ba mu yegg ca cappaandaw mi ca wàllu woowee sax dañuy desandi ci mbir mi nga xamante ne ba tey moom lañ doon di wax muy kër yërmande ginnaaw nag njiitu réew mi Macky Sall mi daal di signé ni ki démb ab projet de décret boo xamante ne dafa jëm ci wàllu woowu ñeel la ñu daal di réglementé bi le secteur bu tout tànk yi doxalin wi ak yenn ci structure yi nga xamante ne ñoom lañ ko dégg ci jamono joo xamante ne lu ñu mel dafa mel ni li wolof njaay di wax bàyyi ba jaan wa nag mooy jàngat li nga xamante ne Evelyne Mandiou Ba def na ko ci wàllu woowu. mu ngi noonu Abdoulaye bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ne moom moo di décret eh, bi njiitu réew mi daal di signé ni ki démb est-ce que tey jii lu nu mel duñu ko duppee tamit médecin après la mort. waaw euh, décret bi dëgg-dëgg baax na parce que tamit xew-xew am na. waaye Sénégal nañu baaxoo mbir day xew ba pare ñëpp yuuxundoo alors que waroon nañ mën di anticiper sur certains événements dramatiques parce que tamit kër yërmande kër yërmande Euh, si li nga xam ne enquêtes yi moom lay wax toujours boobu enquêtes yi lu ñu firndeel ba jamono ji kër yar yërmande moom daanaka kër mbugal la woon. Mhm. looku nag damay jàpp ni euh, li nga xam ne moo di ay pouponnière euh, li nga xam moo di ay crèche li nga xam ne mooy daal lépp li nga xam ne dafa nekk si secteur de l' enfance waroon nañu mën a fexe dégg nga maam nuñ koy saytoo saa su ne. Mhm. nañ fay defee ay inspection de dem eh, inspection inopinée maanaam da ngay bett nit ñi. Mhm. xool naka la ñu liggéey yan condition la ñu yoree gune yi. Euh, Sénégal da ngay yeew rek gis mbir mu bees ñu tabax ko comme ni ko maa waxee wax nañ ko ba tey ab ab ab ab euh, nu ñu koy waxatee pouponnière bu nekk biir Ndakaaru nekk si koñ boo xam ne ñëpp a koy romb ba naa des années nit ki di exercer di def ay vidéo di wane ay gune di photo di def lu nekk naan tuddee naa diw tuddee naa Masamba ak joojo ak ma ma Mapaate ñu bàyyi ko noonu effectivement autorité encore une fois nañu dénk mbirum gune yi tab tabe si ministère yi ba si direction yi nga la xam ne dañoo law am nañu si part de responsabilité bu yaatu da ngay jël euh, ñiy liggéey si wàllu xale comme ay sœurs franciscaines mhm. depuis des décennies ñi ngi fi te ay la yëwan mënu soo dégg ay ay ay ay ay ay mbir yu demee noonu ñiy liggéey si petite enfance empire des enfants mi ngi fi ku su mel ni Anta Mbow mi ngi liggéey depuis des décennies te yàlla def na mësoo dégg ay mbir yu doy waaye nag bu ñu demee ba naan la ay gune yu ñu yóbbu bërëb pour ñu xaar mën a moom se euh, ñu koy waxtee euh, wasin euh, wala ilaa ñi ngi xaar koo xam ne dafa dënkoon doom nga ñëw ñu lay laaj ay nangami million ak yu demee noonu ba ñëpp taxaw di xool jàpp naa ne nag Ndella Madior dëgg la naam moo fa nekkoon patron doon jëfee waaye tamit ñi nga xam ne da leen dénk wàllu gune yi dañ ci am part de responsabilité boo xam ne il faut ñu war ko mën a situer. Mhm. war di mën di sanctionner nit ki bu démissionné wul da nga koy démissionné loo. ko am na solo ci wàllu woowee ni ma leen ko waxee woon rek décret la nag boo xamante ne njiitu réew mi signé na ko waaye jàngat lii ak taxaw seetlu bi dañ ciy ànd ak Evelyne ba démb ci daje conseil des ministres la ñu adopté ab projet de décret bi nga xamante ne ni moom mooy fixé anam gi ñuy organiser ak naka la ñuy amalee fonctionnement wu bërëb yi nga xam ne fa la ñuy jëlee en charge tout tànk yi nga xam ne zéro ba ñetti at la ñu am li ci tey xel mooy ni projet de décret boobu nga xam ne 2019 ba tey ñu ngi koy xaar ay acteurs ay nit yuy yëngu ci sous secteur petite enfance sonnuti di ko laajte signature bi am ca moment bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee la xew xew ca pouponnière kër yërmande bu Ndella Madior Diouf mu nekk lu yéeme loolu ndax tombe waral ay gaaf wala autorité yi li ñu ciy jublu mooy naka la ñuy gérer scandale bi lee nga xam ni yombul loolu ndax ay autorité yi ñu ci tudd ak ay nit yu am tur yi ñu ci tudd doon fotowu ak ay bébé di leen di pare parrainer jox ci seen xaalis waaye li ñu ci mën a jàpp mooy ni nguur gi daal dinay soofantal décret bi nga xam ni moom lañu doon xaar tëj ay bëtam ci ay crèche yu bëri yu am ci Dakar yeneeni région yi tëj seen bët ci anam yi nga xamante ne ni moom la crèche yooyu di ubbee ci ñi nga xam ni ñoo fay liggéeyee te amu ñu formation bi war ngir mun a toppatoo xale yi nga xam ni ñoom ñoo am zéro ba ñetti at ci loolu sax ñu ciy fàttaliku tout tànk wi ñàkkoon kanam ci crèche ba ñuy woowee la cigogne bleue amoon fukki weer kese di fàttaliku yi tamit ci réseau sociaux yi ni bëri woon na ay yaay yoo mu ngi ñu fu daat itam ba tey ci wàllu woowee waaye bi